Alil ñu ñëw fekk fi le vainqueur de Bour Sine le vainqueur de Tyson Guinguinéo le vainqueur de Mbaye Tine tey ñu ñëw fekk ko fi le vainqueur de Bébé Modou Lo Zé naa la. Idi fay naa la. naka tey. sant ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent di gërëm suñuy waajur di nuy waa Malika yëmbal benn baraak buun Kër Massar àll ba ñaax montagne Mbëbës di nuyu. di la fay léegi sa combat ba génn si. gisatuñu siège simple lan la. waaw bilaahi damaa xawoon am blessure nag dama xawoon sama dama xawoon amee blessure doon ci entraîné xaw cee gaañuwaat quoi mooy loolu noon gars ma non bul defa si dara fajul ba wér quoi. yee. tey ñu xewle nga bàyyi li nga jàppoon yëpp ñëw. ñun famille lañ. buuba amee xewle kenn la si man ndax ñu daan contact man su ma bëggaan jàppante bu neex buuba laay ñëw barki Mohamed. ndaanaan la xale bu nangoo entraînement la macha allah yàlla suñu borom dénk na ko kattan gu am solo di ko ñaanal rek yàlla suturaal ko defal ko ndam ndax moo ñu tax a jug tey. xale bi moom Abou Ndiassé numéro 2. bàyyi ma ko xel noonu nag mais ñun xam nañ ki ñu ki ñu yor ki ñu yor ñun xam nañ ko te yaakaar naa ni nit ki bu sa xel dalee ci li nga yor doo waali yaani ci leneen waaw. di premier sortie ni premier grand combat am wàccaay bi. pare na sama xel dal na ci moom. donte doonuñu woon ànd entraînement mais xam naa ne liggéeykat la te xale bu nangoo liggéey ñàkkul dara ci làmb te gis naa ko li ma doon gis ci moom yokk na bu baax a baax di ñaan rek yàlla na ko suñu borom suturaal defal ko ndam lu gën ci moom. général fu mu ne. maa ngi suma ruq ak sama waa écurie waa benn baraag mboolo ak samay xarit waa Malika mafia bi yëmbal benn baraag buun Kër Massar ak mafia bi yëpp daal. général boobu ba léegi dégguñu beneen fu général xasaam. gisoo ni may stressé xoolal sama kanam gi xam nga ne man ko waral. waaw ñàkk a bëre barke alxuraan gënaluñu ndax ñun non gars ñuy woo mais par rapport ak adversaire yi ñu doon proposé am na ay adversaires yi ñuy proposé gars yi ñu ngi discuter mais saa bu ñu confirmé ñun pare nañ pour làmb ndax làmb mooy suñu métier idi. bëri na gars ngi fi mais mënu ma cee wax. làmb dañoo bëgg sa diggante ak Belende làmb ko bëgg. non la mel Belende moom bokkugul sama yoon quoi. bokkul sa yoon champion la. mën na maa sax gën a baax palmarès mais maa ngi moom bokkuguñu yoon. yoon. dara xama lamb léegi affaire la yoon la da ngay yoo xam ne xam ne ñii ñooy say adversaire am ñoo xam ne mooy loolu noonu comprendre nga fi may waxee yow sax ba idi boo yoroon say mbër di nga leen utal say yoon bu ñu war a jaar am déet lamb yoon la mënoo bëreeg say morom yëpp quoi waxu général dafa bëgg ay magam may ko sens waaw foofu laa ko quoi ndax prouvé naa ci lamb lu ma gars yi ñan la gars yi Sa Thiès Reug Reug ma leen fi à tout moment bu ñu Sa Thiès Reug Reug ñoom laa teg sama bët baay xoolal amul laale ak ñaax laale ñoom ñaar ñëpp laa wax fa laa teg sama bët. billaay wallaay wa taala duñ dërëm ay mbër lañ comme ñun. waaw yàlla suñ borom doole sutura rek. ñoom ñaar kon pare. jeex na tax ku ma ci lamb booleel pare naa. barki yàlla. jaajëf